أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد والشكر عن لله على النبي والذي عبد الله habli madaamiya yaa wahaabu doona anan wal takfini bi rasulillahi kulla bala maha balaa'i wa maha amraadi wa bi rida tanqaadu li ahraadi wa an shiraari alxalq wa razaaya wal jinna wal sheytaana wal balaaya wa kun lana aasiman min kulli mahlakatin wa najjina min balaaya dahra yàlla sadid lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi amaat euh, mbégte dellu euh, ci bés bu màgg yi di yomal juma sangu bés yi ci waxtu wii ñun ko baaxoo defee ci seen kër gi di seetu askan wi di ci ànd ak yéen ci émission bi nga xam ni mooy xew-xewu diine ji te kilifa yi àndandoo ak ñun jagleel ko sunu kilifa yëpp rawatina nag kilifa diine yi di tàmbali nuyoo bi ak ziyaar bi ci fadilatu cheikh mouhamadul muntaka ñaan sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ba li mu yéene ci liggéeyal maamam ju tedd ji sunu borom defal ko ci lu kawe njortam di ko ñaanal rakkam yëpp rawatina jëwliñam Cheikh Sidil Muxtaar moom sëriñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad mi ñuy waajal bésam incha bésu tey jii rek bu dellu see war a dëppoog ñaar fukki fan ñett ci weeru kori wi nga xam ni ci lañ nekk sëriñ bi waxoon ci wax yu kawe amoon ci moom yaakaar it te ñi jamonante moom ñëpp ak ñi jamonantewul ak moom sax xam nañ ni yaakaar googu tasu ko kon moom dana bokk ci ci waxtaanu tey jii ngir waajtaayu màggal gi ziyaare Cheikh Sidil Mokhtar moom bu baax ñaanal ko sunu borom yokkute musal ko ak mbooleem njabootu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad gi yëpp sëriñ xadimal Moustapha mii caat ziar cheikh Mohamad Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir ñaan sunu borom yokk musal ko bu baax liggéey bi nga xam ni moom la ko ay magam dénk tàmbalee woon ko ci cheikh Mouhamadou Lamine Baara cheikh Seydil Muxtaar ba ci ki nga xam ni lépp ci kanamam la woon di cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom dooli ko ci tawféex ba ni mu ciy bégale murid yi ak taxawaay bi mu ci am sunu borom dooli ko ci yokk bu baax yàggal ko fi te wéral ko ñaanal njabootu Cheikh Abdoul Khadir gi yëpp na sunu sëriñ sëriñ Cheikh ibnu Cheikh Abdoul Khadir ak mbooleem ay rakkam ziar yoon bi yëpp kilifa diine it fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di ziar. rawaate na njabootu Seydi Alaaji Malick ki ca bopp ba di xalifa bi sëñ Aboubacrine si moom Cheikh mën Mansour ñaan sunu borom yokk te musal ko bu baax moo ay rakkam rawaate na sunu soppe nag di sëñ Maodo Sy baax yàlla yokk musal ko dolli ko wér ak njabootam yëpp ak mboolem njaboot Seydi Alaaji Malick ziar Thierno Bachir taal mi nekk ci bopp njabootu Cheikh Oumar yëpp ñaan sunu borom yokk ko musal ko dolli ko wér bu baax di teg nuyoo bi ak ziar bi ci Baye Fallou Cheikh Oumar taawam bu tedd boobu di Cheikh Oumar ibnu Thierno Bachir sunu borom yokk leen musal leen bu baax ak mbooleem njabootu Cheikh Oumar jaale leen itam mbokk mi fi jógee ki démb jaale ko njaboot gi nekk fii ñoom Cerno madaani Cerno Seydou Nour ak seen jigéen Seyda Fatima ak mbooleem njaboot gi jaale ki itam waa Madina Gunaas képp sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la njabooti deen ndokkeel it xam ngeen ni fan yi ñu nekk ñu ngi ci ay bés yu am solo bés yoo xam ni dañ ko jagleel jàng alxuraanul karim di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di def ay istixfaar di def ay zikrullah loolu yëpp boole ko ak toroxlu gu mat sëkk dem fu sore sore xam ngeen ni Madina Gunaas fee Dakar ba nekk sore na lool te tàng na itam waaye loolu yëpp jublu ci toroxlu wéetal fa sunu borom ñaan ko ñaan yooyu yàlla na ko sunu borom nangu ndax lan fay jàng ci alxuraan lan fay def ci lu baax waxuma Sénégal waaye àddina bi yëpp xaj nañ ci kon ñu ngi leen ciy ziyaare bu baax di leen ci ndokkeel xalifa bi sunu borom yàggal ko fi ak mbooleem ay rakkam yàggal fi njaboot gi yëpp ñu ngi ziyaareet bu baax njabootu Cheikh Bou Kounta ak ahlu xaadiriya gi yëpp xalifa bi ki nga xam ni mooy Cheikh al Bekkaay wullu Cheikh al Bekkaay ñaan sunu borom yokk te musal ko bu baax di teg nuyoo bi ak ziar bi ci loxo Alaaji Ibrahima Kunta maréchalu Cheikh Abdoul Xaadir Jeylaani borom Touba Ndiassane ñaan sunu borom yokk leen musal leen ak ahlu kunti yoog yëpp fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew sunu borom yàggal fi xalifa bi waaye ñaanal itam njabootu cheikh na cheikh Saad bu Cherif ak mbooleem ñi mu njaboote ba ca sunu kër maam cheikh Décalaw Seck cheikh Makhtar xalifa bi ak ñi mu njaboote ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bu baax di leen ziar ci bés bu tedd bii di ñaanal sëriñ Abdullahi cewlaay Laay moom Seydina Isa mu Seydina Limaamu xalifa bi ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ka mook njaboot gi yëpp rawaten ay rakam cheikh mohamadul amin cheikh mohamadul muxtaar imam ba ci seen doom seydina ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñooy njabootu seydina limaamu ñaan sunu borom yokk leen musal leen bu baax ñu dem ba kaw Kaolack ziar njabootu maam Abdoulahi Niass gi yëpp waa Medina Baye sëñ Mouhamadou Mahi ak ñi mu njaboote ñëpp gis ngeen ci démb rek délégation bu mag bi nga xam ni def na ko <coughs> yabal leen ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa xam ni ñoom ñaar ñoo bokk bàyyi bu seen bàyyi sax melul woon nañu meloon xam ngeen Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Mohamad Bachir seen ànd ci Saalum àddina bi yëpp xam nañ ko rafet gi it foo ko mën sa takk rek weesu na ko ndax li leen diine digaloon rek loolu lañ doon doxalante seen diggante kon loolu moom la xalifa bi feddaliwaat bërki démb yebal délégation ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha waaye yebal fa délégation itam ndokkeel ko it ci taxawaay bi nga xam ni moom la së sëriñ bi am te sëñ Mountakha taxawaay bi mu taxaw lislaam gépp la ko taxawal Sénégal gépp la ko taxawal itam kon ñu ngi ziar njabootu cheikh al islam gi yëpp xam naa jombul suñu yeneen jataay wala xëy na balaa jataay bi jeex daanu ñëw ci image yooyu ànd ka ak suñu réalisateur alaaji alaaji Vieux Diouf soppe sëriñ Muntaxa ñaanal njaboot gi nga xam ni itam xam ni lii ñu def xalifa ba ca lew na ñaseen defoon naka bu yàggul mu di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane moom it demoon ziyaare ji ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak njaboot gi yëpp kon ñu ngi leen di ziaraat bu baax di leen ndokkeel bu baax a baax ziar waa kër man sëñ Ahmadou Dem ca sookoon ñu ngi leen di ziar bu baax Cerno Cheikh Mouhamad Bachir ñu ngi teg eh, ziar bi sa loxo nga jébbal ko njaboot gi yëpp xalifa beeg ak mbooleem njabootu sëñ Ahmadou Dem ñaan suñu borom yokk leen te musal leen noonu la ñuy njabootu maam Ahmadou Baro Njëgan ca kees sëñ daam ñu ngi lay ziare bu baax di teg ziar bi sa loxo nga jottali ko mbooleem njaboot gi kees ziar waa kër sëñ Fàllu Njaay daa bàyyi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar xam ngeen ni ñoom it ñu ngi waajal bés bi le 6 juillet incha allah daan ci ñëwaat ci yeneen jataay waaye ziar sëñ Saliou Touré ma fa nekk ak mboolem njaboot gi ziar njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb ak euh, njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel bu baax a baax <coughs> ziar waa ba sëñ sëñ Abdourahim Seck ak ñi mu njaboote waa kër gi yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di ñaan sunu borom yokk leen te musal leen bu baax a baax tey nag ñu wara a rawanteeg waxtu yi xam ngeen ni jiitu nañu sax waxtu yu tuuti ndax yeneen. contrat yu am diggante télévision bi ak euh, waa service commercial bi tax na ñu jiital tuuti jataay bi war a waxtaanee ñaari xew-xew yu mag junj naa leen léegi genn gi mu di ganeek àddina ki nga xam ni mooy sëriñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad war ci ànd ak sëñ Abdoul Ahad Bousso maanaam daañu waxtaanee itam magam joo xam ni it bi mu fi jógee xaw naa yàgg. ndax ay 1956 waa wala yooyu la fi jóge woon sëñ Ibrahima Mbacke di waajuru sëñ daam Abdourahmane sëñ daam Atta moom it at mu nekk ñu koy defal bés ci Mbacke Bari bés boobu it war a nekk incha allah suba nin ko baaxoo defee it at mu nekk ñu am fii jataay waxtaane ko ñu yebal fii sëñ Omar Bamba Diop moom it incha allah daanu ñëw ci waxtaan woowu xam naa léegi balaa yàgg rek daañu ànd ak euh, suñu réalisateur Vieux Diouf gan yooyu ñu dalal leen waxtaane jëmm yu tedd yooyu waxtaane xew-xew yooyu ziar seen njaboot gi fi nekk yëpp sunu borom yokk leen te musal leen bu baax a baax ba nga xam ni yéene nañ ko ci mottali liggéey bi nga xam ni moom la fi waajur yi bàyyi woon sunu boroom defal leen ci lu kawe njort di ziar mboolem njaboot gi ak ñi nuy seetaan ñëpp xam naa balaa ñuy tàmbale ci sëñ Ibrahima mi nga xam ni bésam incha allah suba lay doon ñu fàttali leen itam sëñ Cheikh Absatu mi nga xam ni rakk la woon ci sëriñ bi moom tey it sëñ bi defal ko lépp ndax moom mën na ni sëñ Mor Anta Sali mii waajur Cheikhul Khadim moom la mujj gis ci njabootam ndax Cheikh Massamba mooy caat waaye Cheikh Massamba gane àddinaam fekk na sëñ Mor Anta Sali jiitu ji kon sëñ Cheikh Absatou moom la mujj gis sëñ Cheikh Absatou nag moom it at mu nekk ñu wooteel ko bés xam ngeen ni ci xomba la daan nekk sax waaye ren jii ak euh, fi yëf yi toll tax na ni ñu joxee ndigal ci yeneen bés yi rek noonu la ñuy joxee ndigal kenn ku nekk fa nga nekk nga dundal ko fa sëñ Cheikh Xombal kon ci turam ñu ngi ziar ñu bokk yépp di fàttali ñëpp itam bés bi di fàttali itam njabootam gi nga xam ne ñoo nekk fee ca baar yi fi sëriñ bi nekkoon gannaaw bi mu génnee Touba ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa fa la jógee itam dajeeg noon yi fi nga xam ni mooy jeewal sëñ Cheikh Jorel ma fa nekk moom it ci njabootu sëñ Cheikh Absatu la bokk kon ñu ngi leen di ziare bu baax sëñ Cheikh Absatu moom nga xam ni ay cent quatre 1880 wala yooyu mooy dëppook gane àddinaam kon moom la sëñ Mor Anta Sali mujj gis ci njabootam sëriñ bi nag defal ko lépp kon ñu ngi leen di fàttali bésam boobu sëñ bi nee na kenn ku nekk foo nekk rek nga dundal ko fa incha allah talaata talaata lay doon. kon ñu ngi leen ci ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax di fàttali itam bésu sëñ Mor Jaara saar euh, sëñ Mor Jaara saar bokk ci njabootu Cheikh Ibrahima Sarr Jazaka moom it sunu soppee sëñ fàllu Sarr di sëtu soxna Xadi moom Cheikh Mohamad Fadal sëñ Fallou mu ngi fàttali bés bi sëñ Fallou at mu nekk moom it da ci woote wooteek boppam ren jii mu dara jaale ka euh, sëñ Fallou Mbacke mu sëñ dan mare madame sëñ ñu gën koo xam ci turu sëñ Fallou Mbacké transitaire muy parrain bi marraine bi nag mu def ko kenn ci moom di soxna Mouminatou Kébé dama naan sax kenn ci ñun moom alaaji Babacar Kébé Ndiouga nga xam ne sëñ Fallou saar moom ci boppam tudde na alaaji Babacar Kébé waa waajuru soxna Moumi doom kon uh, bés boobu itam ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax moom it suba lay doon ñu fas ko yéene ànd ak yéen bu baax a baax incha allah kon euh, santaat bu baax waa réalisation Vieux Diouf ak waa kër gi yëpp tàmbalee ko ci président yu Ndour ak mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoom la dénk liggéey bi Birane sunu directeur général euh, ki nga xam ni itam mooy sunu directeur télévision Cheikh Sidi Makhtar Ndiaga sama seexu màkk Alaaji Boubacar ak mbooleem ñi seq liggéey bi yëpp rawaate na ñun ci àndal tey jii ni ma ko waxee léegi ziare leen bu baax ndokkeel leen ndax tey jii dama naan buñ ko mënoon bés bi yëpp dañ koy jagleel ñi nuy waxtaane tey ndax ku nekk xam nga diggante sëñ Sidi moom sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ak président yu Ndour ngan ngan gi mu ko mujj defal euh, sëñ Omar euh, gàtt yi sëñ Sidi doon ganalee président yu Ndour bi bi président waree jógee Touba dem booba ñi mu àndal barewul ndax ñaari oto rek la ñu woon waaye dañi oto yi yëpp nañ ci yeb gàtt yi ba mu fees nga xam ni oto bu nekk daanaka ay juróomi gàtt ak yooyu sax yeb nañ leen ci waaye nag loolu du du du jommee ci waaw si ci ci Touba ak rawaate nag sëñab daal waaw ndax ni mu mel ni mu daan def ay ganam xam naa dana ñëw ci kanam tuuti ci waxtaan wi kon euh, kooku bésam bu jegeesee ak ni mu mel boroom kër gi mënoon na gën a yaatu bu baax noonu sëñ Ndaam Abdourahmane mii nga xam ni mooy xalifa sëñ Ibrahima Mbacke mi ñu war a waxtaane léegi moom it gis ngeen at yii yëpp ñi ngi sunu wàccuwaay ca tuubaa mooy buntu kër Cheikh Ibrahima Mbacke ànd kaag rakkam sëñ Fallou ñu gën koo xam ci turu sañaas ak njaboot gi yëpp njabootu Cheikh Ibrahima seen sët yeeg doom yeeg ñëpp rek am yéene lool ci kër gi kon moom rek moom it doyoon na sëkk wax dëgg yàlla bés bi yëpp ñu jagleel ko ko kon loolu mooy euh, tey jii jëmb yu tedd yi nga xam ne ñoom la ñu war a waxtaane alhamdulilah rabbil kon sëñ Omar jërëjëf dañuy ñaan rek waa régie kon mm-hmm. régie waaw ñu indil nu nag euh, ki nga xam ni moom la ñu war a waxtaane waat euh, léegi di sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ñu fàttaliku tuuti rek ci ay waxtaanam fii sëñ Omar de bàyyee rek waaye li ma koy maa ngi fàttaliku ci année quatre-vingt yi journaliste bu ñuy wax Jean gi bindoon ci Paris Match waxoon ci yu bëree bëri nga xam ni sëñ Omar yi xeex bi yàgg na de. xeex bi yàgg na. yàgg na loolu bàyyi laa dina ci ci dikk bu plus largement incha allah. ba <laughs> kon kon ñu déglu élément bi soogaa dellu soit incha allah. te yàlla bu dee tee def da di gën a dimbali. loolu laa jëkk bëggoon a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag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 nabiyul mursal moo di ab yonent te kooku rasulullah yi ci mujj waaye nag mursal moom du fi jóg seen saa ngir képp koo xam ne boo dee wax ñëpp ne tekk di la déglu mursal nga ci ñu ngay waxal suñu yónni ci ñu ngay waxal yàllante nag nga xam ko mbay wax loo xam ni njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla am lu ci yàlla santaane wabtaxi fii maa aataaka allahu borom wax loo am sàkku ci sa tërug sa tërug àllaaxira wala tan sa nasiibaka mina dunya sécurité addina it bu ko fàtte kon nag kuy wax ku ni war leen wax lu leen di jëriñ ci ci addina kon nag ma leeral leen ni leen doomu aadama yi ñuy bari bari yu jëkk yi ak yu mujj yi ak ñu ñeneen ñuy xale bi ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne da nga wéet yàlla ba mu defe defee ne yow doo dong la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum wa aati yi yowmal xiyaamati fardan wax na ginnaaw da ngeen di ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag lan nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la la yóbbu wa man yaati si moom meneen xar amila saliati koo xam ne yóbbaale nga fa ak gëm ak jëf yiw fa fa walaayka lahum darajatun ullah rek la leen di defal daraja yi gën a kawe kon nag nun murit suñu gëm yàlla ak suñu jëf jiw lépp dellu na ci Sëriñ Tuubaa la la wéeru na leen wóor cëng ne sëñ Touba la nu jaayanteel sëñ Touba la nu topp sëñ Touba mi nu topp nag ku topp ku topp ci moom ci yonent bi nga topp danaa joxe li ko waral ku ku jaayante moom it yonent bi nga jaayanteel te ku jaayante yonent bi yàlla nga jaayanteel ina li seen yu bàyyi noona ka inama yu bàyyi noona allaha man it suñu rasoola fa xadaata allaha kon nag diggante sëriñ Touba ak yonent bi laa bëgg nu waxtaan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 dox na ko léppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddan Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndaw ak daana ko bind sax ak di bind Momadou Sall mu xëy ci ama wasa si wax ne mayetuma kenn ku ma waxati Momadou Bamba gis naka tey sama diggante ak yàlla wasat bi bi kaw ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo naa la bisub tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamu yàlla donc boo xam ne bii nag day liggéeyal yàlla bu mag bi jaamu yàlla bu mag bi tax nga fa awha ila abdihi ma awha tax nga naa subhaana la si asra bi abdihi lay muy rasulullah loolu. jërëjëfati Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad yàlla na ko sunu borom doolee fayal bu baax moom ba tey jii rek mënees naa jëriñoo. ay kàddoom bu baax a baax santaat bu baax sëñ Omar Bamba ci jataay bu am solo bi nga xam ni mënoon nañu bokkaat jataay bii sax ndax euh, xam na ni noonu mu ko defee ci sëñ Ibrahima Mbacke noonu la ko mën a defee itam ci rakkam ji di sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad waaye nag mu ànd ak sunu sëriñ moom it di kenn ci moom di sëñ Abdoul bu so Maram bokk ci commission culturelu kër sëñ tubaay Cheikh Abdoul ñi yor wàccaayu màggal gi bokk ci yam ci daayira turandoo yi moom it am taxawaay bu ràññeeku ci wàllu xam-xam kon moom it ñu jox ko mu nuyoo ñu war a waxtaan nag tuuti rek ci turandoom ndax xam na ni lépp lépp du fi xaj waaye rek ñu am bunt yu mu ci jël bàyyi ñu dalalaat la sa kër ndax kër gi sa kër la jox la kàddu gi jërëjëf sëriñ ji li jërëjëf aouzu billahi min mayli li xayri riba wa min suludi amma sunna aw furida hmm. alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali wajaal hmm. kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barkab cheikhul xadimi saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wazid baraayi euh, ñi ngi lay nuyu bu baax di di la ziar waaye di jiital ci nuyoo bi a ak Cheikh mun taxa hmm. di ko ñaanal mu yàgg fi loolu Mbàkke te ànd ak wér ba lim am yéene liggéeyal maamam Cheikhul Xadim yi ci toolub lislaam bi mu def ci lu kawe njortam euh, di nuyu bu baax itam Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga hmm. xam ne moo di jëwrinam di hmm. rakkam di léppam di ko ziyaara di ko ñaanal moom itam liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba ak way juróom wa Cheikh Abdoul Ahad ci toolub lislaam bi hmm. mu def ci lu kawe njortam ak njortul béppub taalibe hmm. ak njortul bépp jullit ci barkeb hmm. Cheikhul Khadim bi di nuyu bu baax ak ziyaara njabootuk seexab Abdoul Ahad Mbacké gépp daanaka bu ma tuddee Serigne Sidi. Hmm. dana yóbbaale njaboot gépp dana mel ni tudd naa ñëpp. Euh, Serigne Mahmoudan mi nga xam ne mooy jëwrinam ci liggéey bi nga xam ne hmm. moom la ñuy def saa su nekk at mu jot ci bu ñu ko daan woote ca dëkk ba di fa dajaloo hmm. euh, mel na ni ñooñu danañ yóbbaale njaboot gi kon ñu ngi leen di siyaara bu baax ak mboolem sëti Cheikh Abdoul Ahad yëpp di siyaara bu baax itam ñi nga xam ne ñoom lañ daan àndal liggéey bii euh, ci jamono boo xam ne daanañ ko woote saa su nekk muy waa commission bi ci njiitul Serigne Abdoul Jaxate xam ne moo nu jiite. ñu ngi koy ziar ñoom suñ ab laxaat Makhtar suñ Abdou Lahad maam mm. Assa. ak suñu euh, Abdou Lahad Ka. Mm. ak gis nañ ko mu def jàngale wolof yu am solo mm-hmm. ak mboolem daal membre yi nga xam ne ñu ngi ci biir commission bi ñoom suñ sëñ Bassirou Touré sëñ Xaali Jaxate ak sëñ Moustapha ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax sëriñ Jili mm-hmm. di la nuyu yow tam di la ziyaara bu baax di nuyu mbooleem waa kër gi suñu wëlëre yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di mm-hmm. ziyaara bu baax te di leen ndokkeel jërëjëf euh, sëñ Abdou jërëjëf ci nuyoo boobu nuyu njabootu Cheikh Abdou Lahad gi yëpp euh, ba ci soxna may Maymunatu soxna May moom Cheikh Abdoul Ahad ba ci soxna jaare mi nga xam ni moom mooy ci mujj ci jigéen ñi ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax sëñ Abdou jamono ji maa ngi koy junj léegi bi ñuy waaj bi may daaneel ak euh, sëñ Omar di fàttaliku 1985 wala ay 83 yooyu du ko sore ci année 80 yi la daal euh, journaliste bu ñuy wax Jean gi am lu mu bindoon. ñu fàttaliku kàddu yi ci sëñ Abdou Lahad yëkkati woon xamle woon ni sëñ Touba ku ku jéggal ay noonam. kenn du ko tontul ay noon. du ko ñuy xulool du ko ñuy xeexal. ku ñuy topp la ku ñuy liggéeyal la. Euh, sëñ Abdou Lahad lan ngeen ci mën a indil rawatina nag ci contexte bii ñu toll ak taxawaay bi nga xam ni. moom la sëñ Muntaxa taxaw di nu fàttali lu bare ci taxawaay sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye ak doxin bi jërëjëf sëriñ Jili jërëjëf euh, ni nga laaje am na solo ndax comme waxtu wi du bari mhm. du jar ñuy dugg ci sëñ Abdou ci askan yaag ndax yooyu moom ñëpp xam nañ ko <laughs> dëgg la booy euh, juróom góor askanu Mbàkke ñëpp xam nañ ko dëgg la mënuñu cee wax daanaka lu ñu xamutoon mhm. kon li gën a jamtal mooy gën a méngale waxtaan wi ak ak ak jamono mhm. ba nga xam ni danañ xam ci njàngaleem Cheikh Abdoul Ahad mhm. lan lañ ci mën a tiire loo xam ne mhm. danañ ko yóbbuloo ci jamono ji ba lu baree bari du ñu mën a fëkk mhm. loolu jàpp naa ne mooy li ëpp solo waaye euh, li tax itam loolu mën a am euh, mooy Cheikh Abdoul dafa doon koo xam ne euh, dafa bokk ci li yàlla fayee Serigne Touba ci liggéeyam bi Cheikh Omar Bamba mi ngi koy wax léegi Serigne bi bi ko tubaab yi di jëlee ci yeen Jolof di ko indi jaareem ci résidence surveillée dafa am lu Serigne Touba wax Mhm. loo xam ne bi mu koy wax euh, zahiru wax ji rek mën naa am ña koy gis duñ xam lan la waaye dëgg-dëgg lubb mbir ma ca biir mooy ñi nga xam ne sunu borom fayee nañ faye na fayee na ko ko ca mhm. ca ca njaareem Cheikh Abdoul Ahad mi bokk ci mhm. gane àddina ci atum 1914 euh, ci septembre 1914 ba mu ganee àddina maa ngi lay indil te li nga xam ne moo sabab tey jii ñu xel yépp di bëgg delluwaat ci Cheikh Abdoul Ahad bëgg a gàggantiku ci moom mm-hmm. li ko indi mm-hmm. Sëriñ Tuubaa dafa wax ni mm-hmm. ma masiri ilaa benn la daal la sa sin law aayanoo sirrama fi sayri ma raamu bi ñu may fab di ma yóbbu résidence surveillée ci njaareem bu nu xamoon li ma sama borom dencal ca résidence surveillée booba du ñu ma fa yóbbu waaye ñàkk koo xam moo tax ñu yóbbu ko fa bañ ko fa yóbboo nag Cheikh Abdoul Ahad gane àddina bi Cheikh Abdoul Ahad ganee àddina Serigne Touba dafa wax ni Cheikh Abdoul Ahad mii bu jaaratoon ci man te ganee àddina kum fi mën a fekk moo lay ëpp daraja loolu day firndeel nekkoon moom suñu borom daf koo fayee Serigne Touba. Mhm, mhm. looloo tax mu waxoon ne moom de damaa am ci moom yaakaar lool. Mhm. ba taxoon ci aada jooje aaday askan wi liñ daan def mooy bu xale ñëwee jamono ñu defal ko ay serang ak mooy liñ daan wax laaxu caaxaan yooyu. suñ mag bi dafa waxoon ne nañ def léppam ceeb ndax dama am ci moom yaakaar te dama bëgg mu doon ko ñàkki caaxaan bi nga xamee ne ñi ngi koy wutal aw tur sëñ bu mag bi yabal sëñ Amsatu Jaxate hmm. ak délégation bu mag buñ demee sëriñ bi ne leen na ngeen jàng xasid ak fusti bi sarfil xasanaat ci nopp nday jor ba hmm. euh, bi ñu ko defee bi ñuy dem sëñ Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne mooy magam bokk ak moom Seyxul Xadim mi ngi ci jataay bi hmm. sëñ Baara nee na ma daal ne naa jóg rek topp ci dem. bi may dem sëñ bi waxuma dara. ba ñu dellusiwaat ma dégg li sëñ bi wax ci moom lépp. Mm-hmm. wax ne moom day Abdul Ahad mii turam bi ku ko man sa yaram aram sa war a. muy Abdul Ahad jii tey muy suñ turu sell bi. te yaakaar naa ci moom lañ njëkk a déggee itam tur tur wu ni mel. Mm-hmm. bu dee ci suñu tund wi li ñu xam moom ci mm-hmm. moom lañ njëkk a déggee turu Abdul Ahad woowu. sëñ Mouhamadul Amin Baara bi mu déggee loolu. 1914 la. mille mu ne kii de danaa fexe ba doon ki koy njëkk a tudde doom 1915 mu am euh, doom tuddee ko ko muy Cheikh Abdoul Ahad Bara mhm. mooy way juru sunu xarit sëñ sëñ Alaaji Mbàkke ak ñooñu mhm. euh, kon ak ñëwam jamono mhm. dafa indaale ay kéemtaani boppam yaakaar jooju nga xam ne Serigne Touba amoon na ko ci moom nag bi mu màggee daf koo dëggal te daan wax naan yaakaar jooju sama way jur amoon ci man bu ma ko naree tas yàlla bu ma ko fekkee kon moom xamoon na li ko doon xaar lan la mhm. liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi xamoon na li ko ci doon mhm. xaar lan la mhm. moo tax ba mu ba mu tollee ci jàng balaa may ñëw ci li ma bëgg dëgg dëgg ba mu tollee ci sàkku xam-xam sëñ amsatu sëñ sëñ mag bi daf ko jox sëñ amsatu ne ko dama bëgg nga jàngal ko alxuraan wala keneen ku ko mën a def ci moom waaye nag na nga xam ne li tax ma jox la ñii muy moom Cheikh Abdoul Ahad rakkam sëriñ Saaliw sëriñ Souhaïbou sëriñ Abdou Samad li tax ma jox la tekkiwul aada ji nga xam ne moom lañ xamoon muy bàyyi bu jël ay njabootam di ko mm-hmm. jox ay nijaayam mm-hmm. waaye daa fekke na damaa def ci yow mbir mm-hmm. te mbir mooma amatu amatuma jotug man di taqoog ñëpp di leen ko defal ma bëgg nag nga def ko ci ñoom bi ñu demee ci daara ji mu jox leen sëñ alsaan jaxate mu di leen jàngal sëñ alsaan jaxate dafa dafa gis ne njaboot gi fa ñëw ñëpp a neex xel di gaaw a mokkal ba mu def sëñ Abdou Lahad mu ñëw ci sëñ Amsatu Jaxate jàmbat ko ko ne ko ñii de muy Serigne Souhaïbou boog Serigne Saliou ñii danañ mën alxuraan waaye mbirum sëñ Abdou Lahad mii de jaaxal na ma ndax daal mel na ne moom takk bind xaw na koo jafe mhm. bi mu ko waxee loolu sëñ Amsatu jël ko ànd ak moom ci sëñ mag bi mhm. bi mu demee wax ko sëñ mag bi sëñ bi ne ko demal yóbbu ko mu jàpp bi sëñ Amsatu demee yóbbu ko mu jàpp ba noppi mu ñëw sëñtuwaa jël kaamilub alxuraan jox Cheikh Abdoul Ahad ne ko nangu ko ak sa ñaari loxo mhm. sëñ Abdou Lahad jël ko ak ñaari loxoom sëriñ Tuubaa ne ko kaamil bii day na nga xam ne mayuma la ko jaayuma la ko dama la koo lebal hmm. dama bëgg nag nga fay ma ko boo mokkalee alxuraan nga bindu téere fay ma ko su boobaa ma bijjanti la ba Tuubaa est-ce que Cheikh mu daan ne ko hmm. euh, ŋaal mu ŋaa sëñ mag bi daal di jàng aayab alxuraan bii fa innama yassarnaahu bi lisaanik hmm. daal koy tefli ci gémmiñu Cheikh Abdou Lahad bi mu ko ci teflee daan ne ko warnal sëñ Abdou Lahad war na nee na sëñ bi daa di dindi genn kaalaam gi woon ci bopp bi dindiwaat ga ca topp dindiwaat kaala ga ca biir hmm. daal di jël kaar ak biir googu jox sëñ am sot ne ko joxal ma ko soxna Fat Silla oh, Fat Silla libaas Fat Silla hmm. boo demee nee na ko dagg mbubb te lu mu daggee ci kaala gi na ko ci tappaat bu noppee bu ko sànni te bu noppee nga indi ko sëñ Abdou Lahad diggante booba moom sëñ am sot dafa ma fa bàyyi mag sëñ mag bi dong ñoo fa nekk hmm. si ñam sotti jaxate dem jox soxna fat si la kaala gi mu dagg ko mbubb ba noppi mu indi mhm. sëñ bi jëlaat mbubb mi jox sëñ am sotti jaxate ne ko boo demee balaa tàmbali waatu bind na ko njiit laayoo ba noppi bi ko sëñ Abdou Lahad njiit laayoo nag ba tàmbali bind bis booba moom ñaari bind la ci mokkal ca la tàmbalee gën ngaa tuuti bis bu yàlla sàkk da mm-hmm. muy jël gën ngaa gàtt ñaari bind ba far sax njëkk a mokkal rakkam ya fa nekkoon njëkk leen a bind kaamilub alxuraan suñu ab laxat nee na keroog bi ma sëñ bu mag bi defee loolu mm-hmm. ca laa mujj a xam nit di ko fàtte di ko fàtte ca laa mujj a gis dara mokkal ko fàttewaat ko mbindum ndeyjoor ak mbindum càmmooñ ca yam mm-hmm. nag lu mu gis mokkal ko moo tax sëñ Seex Abit nee na euh, sëñ sëñ Abdou ba ci biir bi mu nekkee seriñ Tuubaa léeg-léeg da daan taal oto bi topp yoonu njaareem bi di tari ndekete booba li mu daan def mooy di tari bay xasaayit yi mu daan mokkal mm-hmm. bi ñu ñibbisee mu ne leen bu njëkk ba may am jot bis bu set daanaa tari ñeenti junniy bayit ñeenti junniy bayit ñeenti junniy bayit daanaa ko tari bis bu yàlla sàkk mm-hmm. kon nga gis li sëñ Tuubaa def ci moom mooy ci mm-hmm. wàccaay yi li mu bëgg ci moom ni mu ko waajalee ci saahir ak ci baatin euh, bi mu sëñ Abdou Lahad bindee kaamilub alxuraan fekk bu leen sëñ am sot daan indi day def bu indee sëñ Abdou tey bu subaa mu indi sëñ Saaliw bu subaa mu indi sëñ Suhaybu beneen yoon mm-hmm. yoon woowa nag mu war a ñëw fekk sëñ Suhaybu moo war a ñëw sëñ Abdou mm-hmm. Lahad warut a ñëw mm-hmm. sëñ Abdou Lahad bind na kaamilub alxuraan ba noppi ñëw ci sëñ am sot ne ko damaa bëggoon yoon wii ginnaaw man sama téere noppi na te sëñ bi waxoon na ma su ma noppee mu bijjanti ma ba Tuubaa dama bëgg nga yóbbu ma ma dem bu ko defee ma joxaale ko sama kaamilub alxuraan sëñ am sot ne ko nag ndigal li ma sëñ waa jox mooy bu may ñëw ma indi sëriñ soxé ba ndax yoon wala weesu yaa demoon mhm. sëñ Abdou ne ko teg maa yóbbu rek mu ne ko li ma sëñ Tuubaa def jox ci daal laay def mu ne ko ma dem waxtaan ak suñ suñ soxé ba noppi mhm. daal dem waxtaan ak suñ ko damaa bëggoon nga bàyyi ma dem ginnaaw sama téere noppi mhm. ko defee man bu ma demee ma koo jox sëñ bi beneen yoon wii nga dem suñ soxé bi ne ko bu ko ko bi mu ñëwee sëñ ne ko suñ soxé bu nangu na mu ne ko nag man ndigal li ma sëñ bi jox rek laa man a def sëñ Abdou Lahad ne ko kon bu ngeen demee yàlla bu ngeen ko gis bi ñu ñëwee dimanche yëglu ñu dal kër sëñ Mbàkke Jaxate comme nañ ko daan defee mhm. ñu yëglu sëñ bi yëg na ne ñu ngi fi mhm. dimanche altine sëñ bi wàcce ab liggéey fekk kaamilub sëñ Abdou Lahad noppi na mhm. ca boobee nag bi kaa moo tax kaamilub Cheikh Abdou Lahad ko jox sëñ Modou Moussa ci jamonoy sëriñ bi moom noppi na waaye sëñ Modou Moussa la ko jox kon moom 1927 bind na kaamil bind na kaamil Mm. waaye jotu koo jébal sëriñ bi boo koy seet fukki at ak ñaar fukki mi ngoog ginnaaw nag sëñ bi moo ne ko woon bu téere bi noppee dinaa la bijjante ba Touba bi muy noppi fekk ci fan yooyu la sëñ bi war a ñibbi Touba mm-hmm. wala ñibbi si Touba mm-hmm. guddi gi fa sëriñ bi di ñibbi si it sëñ Abdoulaye Jaxate nee na mook Cheikh Abdoul Ahad ñoo bokk benn lal buñ tëdd mm-hmm. ñu tëdd ba guddi sëñ sëñ Abdoul Ahad ne ko pëkk pëkk mu jóg mu ne ko sëñ bi ñibbi si na Touba fanaan si na Touba nee na ma ne ko sëñ al sëñ te génnul néeg bi ma ne ko sëñ bi def ñuy dégg de tëddal sëñ bi daf ñuy dégg nee na mu tëddaat ab diir daan na ko waat pëkk pëkk mu jóg mu ne ko nañ dem sëñ bi ñibbisi na Touba fanaansi na Touba tey nee na mu ne ko sëñ bi daf ñuy dégg ñu tëddaat nee na ab diir nag la ne tekk ba mu yàgg mu ne ko pëkk pëkk mu jóg mu ne ko sëñ bi ñibbisi na Touba def nañ ko ca ron ga ba mbaaral ko fa te génnul néeg bi mu nekk kon loolu dafay firnde wàccaay li nga xam ne mhm. sëriñ bu mag bi waajal na ko Cheikh Abdoul Ahad mhm. mhm. léegi nag mu doog a ñëw zahir ak ci baatin léegi nag mu doog ñëw nag ci xam-xam bi nga xam ne def nañ ko ci moom ci zahir waaye la ngay gis rek mooy la sëñ abibu ma ko doon jàngal laataa sëñ abibu sëñ maxtaar jàng goyaar doon ko mm-hmm. jàngal ca tindoo di mm-hmm. ci ndigalul sëñ Modou Moussa sëñ abibu itam ñibbi si Touba ci ndigalul sëñ Modou Moussa ngir mm-hmm. jàngal njabootuk sëriñ Touba bi Cheikh Abdoul bi mu jàngee ci sëriñ abibu ba noppi léeg-léeg sëñ abibu mas nañ dëkk ko wax di yéem sëñ Abdoul Ahad ci discours yeeg kéemtaan yi ni muy mën a mokkaleeg wax ji ni muy tegaloog yooyu organisation bi sëñ abibu ne leen lii muy wax di jàngiwu ko fa sama daara nga xam ne lam jàng ci kër suñu abibu moom mooy téere yi nu xam ñun ñun ñëpp jàng nañ ko waaye lam cay def moom kenn mënu ko ci ñun. kon ak jagleeg boppam ak jagleeg boppam. Mm-hmm. su suñu la laxaat loolee daf ko daan wax naan jamono dina ñëw joo xam ne hmm. képp ku gàgg ci sama waxtaan yi ngay gàggal loolu nag mooy lii ngay laaj tey ñu agsi nga xam ne jamono day toll foo xam ne hmm. lu ci bare bari bu weeru koor ñëwee hmm. lu bari waxtaan yi suñu ab laxaat la ñuy indiwaat gàgganti ko la mu ca la mu ca waxoon la mu ca waxoon ca ca jamono booba lool rek daanaka day day xam nga loolu day daal di màbbal day daal di mën sooxal yii ñuy wax yii yëpp te loolu sax sëñ sëñ bi ndax sëñ bi ña ñëwoon di ko wax naan ko weer bi nangam ak nangam mu ni ramadaan nuyooguma Chaban tàggoogu tàggoogu tàggoogu ramadaan nuyoogul loolu xam nga ni loolu sax boo jëlee boo jëlee baatin bi teg na man sëñ mm. Abdou Lahad bu ma ciy wax léeg-léeg mm-hmm. day am wàll gu may gën a bëgg ndax moom sëñ da daan wax ni mm-hmm. euh, xel mu rafet du ne fi xuus may jëfandikoo baatin ci cas bii ngay wax dafa am xel mu rafet mun a ci xuus bala ñoo ñëw ci baatinu sëñ bi mooy saabaan da koy tàggoogu ko ramadaan nuyoogu ko mm-hmm. loola mooy ñoom wooroon nañ te fekk dañoo gisoon weer te kenn déclaré wu leen ko weer wañ gis nag di weeru seytaane si ñëpp laxat lii ngay wax lam ca teg mooy ñun ñii di waa Touba keroog ca tisbaar lañ dog keroog ca tisbaar lañ dog kon ndaw la jóge njaaree mag Touba moom def na biir ci yoon yi ba tisbaar muy doog a ak si Touba booba téléphone amut kon ñoom la leen dogloo ca ndigalul sañ bi la la woorloo woon it mooy gis weer kon jamono booba moom ndigal luy bàyyi koo fen di ñëw ci kenn naan ko wooral mbaa wooril amutoon bu ko defee loola itam li muy gën a remettre en question mooy pas-pasu sang yooyu nga xam ne kilifa yooyu nga xam ne tudd nañ leen ndax suumoo li ru'yatihi wa aftiroo li ru'yatihi la yonente bi sa alayhi wasallam wax dog leen ci woor leen ci bu ngeen ko gisee dog ci bu ngeen ko gisee bu fekkente ne itam gisuñu ko mën nañoo sukkandiku ci ñaari jullit yu maandu ñaari jullit yu maandu yooyee nag gouverneur bu ndar bokk ci kon mënee suta sukkandiku ci moom di wor mbaa ñuy wori te jullit yi ne fi yori bët man koo gis di aw mbooloo wu dul jeex kon yooyu moom daanaka wax yu yu yu yu amul amul wàccuwaay la mi ngi noonu kon Cheikh Abdou Lahad ci jamonoom dafa fexe woon ba euh, am kilifteef goo xam ne gu matale woon fépp la ba yilifaale sax mën naa ne la ci du yilif gu gu gu matale waaye ñi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom réew mi te ñu yilif yeneen i turuq suufi ya bàyyi woon nañ ko xel may ko ci seen bopp cër boo xam ni euh, daanaka mën naa ne la seen kilifa lañ ko daan may am na ci koo xam ne ab tarixa a jiite ñëwoon ci moom di ko jàmbat xëccoo bu amoon ca fam jiite ba mu ñëwee ci ñëpp laxat di ko jàmbat sëñ si ñëpp laxat daf ne ko li ma bëgg nga doyloo ko te yóbbuloo ko mooy la fa nekk muy yaay suñ diw jañ lay wax te nga jiite njaboot ga na la doy sëkk ab cër walis ngay xëccook njaboot ga leneen lu dul moom boo ko defee day lépp dana dox fekk si la ba mu demee def noona ndam la ca la ko amee lépp a dox ba agsiwaat ci ay yoxom kon moom noonu la daan mas na ko wax ab président Abdou Diouf sëñ Moussa Abdou Khadir nettali na ko ne dafa Abdou Diouf dafa ñëw mu laaj ko ne ko euh, Abdou yéen nu ngeen di yore am réew man daal ni ñu yore kër xam naa ko waaye ni ñu yore am réew dama koo jàngut sëñ Abdou sëñ Abdou Diouf ne ko ah bëggoon nan wax ne nooy yore am am nooy yore kër de mu ne ko kër daal ni ñu koy yore mooy yow mii kilifa gi da ngay wulli sab der ba mën a dékku lori nit ñi wulli sab der te jikko jooju nag kilifa mënu koo ñàkk làmboo boo wulee sab der ba mën a dékku lori nit ñi bu ko defee saa boo xëyee foo dégg njariñ nga dem wuti ko boo ko wutee ba noppi nga indi ko saam ko ci digg kër gi séddale ko te nangu caa gën a néewle daan ko boo ko defee nag juróomeel bi mooy lii mooy baat borom kër bu nekk baat nag ci bopp lay sax ku ne xam na ne baat ak bopp boo leen tàqalikoo jëmm dootu fa amati wala jëmm ja du amati solo mu ne ko baat nag ci bopp lay sax kilifa gu nekk sa baat nga téyel ko sa bopp sa baatu kër nga téyel ko sa bopp daal ne ko nii daal laa xam ci noo xam ne moom la yore kër président Abdou Diouf ne ko ku ko yore am réew mu jag kon ñi nga xam ne dañuy diriger di yor réew mi moo xam ay ministre lañ moo xam ci président de la république la lii am njàngat la ci ñoom boo xam ne mën nañ koo yóbbuloo mooy wulli sab der ba mën a dékku lori ñi nga yilif waaw ndax yilif ku ne yaa yilifaane lu ne da nga yilif ku la bëgg da nga yilif ku la bañ yilif ku la nangul yilif ku la gàntal yilif koo xam ne da yéene waaye bañu la lu mel noonu nag saa bu ko defee nga boole ko euh, làmboo jikko yi nga xam ne wala njàngale mi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad euh, wax na ko ci doxalin wi euh, mu jàngale léegi kon bu ko defee sëriñ jili noonu mooy li nga xam ne si Abdoul Ahad daan na ko daan na ko daan na ko jàngalee bu ko defee li nga xam ne liggéeyal na ko sëriñ Touba itam ci yoonam wi dafa am foo xam ne sëriñ bi dafa jëlee li ñuy wax al muridiya am fu mu ko yóbbu. Mm-hmm. Cheikh Moustapha al Karimi bi mu fi nekkee dafa am lu ko Cheikh lu ko sëriñ bu mag bi liggéeyloo. Mm-hmm. ci wàllu saahir ba mu ko liggéeyee ba noppi sëriñ lu am lu ko eh, sëñ mag bi liggéeyloo mm-hmm. te lislaam it hiérarchie boobu dong la amee lislaam ci ñaar fukki at ak ñett ci la wàcc li ngay gis muy araam ak a dagan lépp xëyut xëy wàcceendoo araama doo mbaa mu daganandoo bu xëyoon ci benn bis ñu araama la ndoo ñu bari danañ bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ànd ak kenn mm. ndax xëy xëy bëgg tàmm dara ñu bàyyee la loola lépp ma mën naa métti weeru koor yi ngay gis yëpp dem nañ ba lislaam am lu ëpp fukki at ci kaw suuf ñu doog koo def farata ba ci julli sax wala ba ci julli rañaan gi ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci sàngara yi ñuy tere lenn lu ci nekk nam demee woon Touba mm-hmm. noonu la demee ci lislaam dëgg la mooy lislaam am na lu yàgg jullit ñi di naan sàngara mm-hmm. ba lislaam ñëw Ah, tere leen sàngara ci alxuraan mm-hmm. yasalunaka anil xamri wal maysiri mm-hmm. qul fihima ismun kabirun wa manafiun linnaasi mm-hmm. njariñ a ngi ci waaye nag lor ji moo ëpp ba mu ko defee jullit ñi dañoo continuer di naan sàngara ba alxuraan ñëw ne leen fahal antum muntahuna gars yi doog a bàyyi naanum sàngara bi kon am na noo xam ne l'islam noonu la tëddee yoonu murit tam liggéey Serigne Touba bi noonu mu ñëwee ni mu fondement jumaa ji noonu la fondee keno yi nga xam ne moo téye yoonu murid mhm. sëriñ Fall bi mu ñëwee yi noonu la ko yëkkatee ba mu raase ba àgg fépp mhm. ba lépp mat nga xam ne nag raxas ko euh, def entretien yi mhm. toppatoo ko setal ko ba mu set rek moo ci def Sëriñ Abdou Lahad ñëw amee mission boobu bi mu tollee ci di ko raxas itam na ko Sëriñ Touba bëggee woon ca Matlabul Fawzayni ñaan ko ci plan bi mu Touba noonu la ko Cheikh Abdou Lahad ci sukkandiku ci plan bi ci lépp loo xam ne Sëriñ Touba ñaan na ko ci Matlabul Fawzayni mu fexe ba loola jëmm biir Touba man lu may faral di wax la Euh, sëñ mag bi buy ñaan dara. Mhm. ñaanu ko ngir ne ay malaayika ñooy ñëw di ko tabax. gis nga lépp luñ gis sëñ Tuubaa ñaan ko te xëyaguñ mën cee teg suñ bët. nañ xam ne mhm. loola def la war. dëgg la ñu feex ba kenn ku nekk la cay sawarteef nga di ko def comme ni ko mhm. gis nga sëñ Abdou Lahad liggéeyam bi dafa àgg foo xam ne tax na fi ne ku ñëwaat ginnaawam ci ab liggéeyam ngay sof mooy université bii ngay gis sëñ bu mag bi moo ko ñaanoon dénkaane ko mu bokk ci ñett yi nga xam ne daf koo dénkoon murit yi laataa mu fiy jógee ajug màkk gi ci la bokkoon te gëm naa ne sëñ bi moom mënutoon a dem màkk ndax bu sëñ tuwaat boo déggoon ñu ne sëñ bi dem na màkk da dégg ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jub na saafoxante ak ku aj moo tax sëñ bi moom ak ñàkk demam màkk dong laa jàpp ne mm. euh, gàllankoor yi saayir yi am na ci waaye mm. ñàkk gee damit nag mm. léeg-léeg euh, mën naa xaw a baax waaw ndax bu demoon mën naa am la muy jur buñ ca noppee euh, la yàlla xam bu ko defee kon dem Makka googu mu bokk ci li nga xam ne dénkoon dénkaane woon ko jumaay Tuubaam bi mu dénkaane woon ko waaye université bu magit bi mhm. dénkaane woon ko boo xam ne fu ne la nit di jógee ci réew mi dafa jàng Sëriñ Abdou Lahad tàmbali woon ko muy université bii ci Touba te Cheikh mhm. Mouhamadoul Mountakha taxaw tey jii ci di ko yeggale kon li mu liggéey ci wàllu xam-xam mhm. liggéey ko ci ci liggéeyal ko Sëriñ Touba ci murit yi valoriser waat nit ñi mayaat leen fit ba ñu mën a dundaat seenu murit loola moom liggéey bu am solo la Serigne Djily boo xam ne euh, yoon yëpp gis nañ ci seen bopp jullit yëpp gis nañ ci seen bopp nekkoon koo xam ne ku daan boole ñëpp la mm-hmm. koo xam ne ku daan dimbale ñëpp mas na mm-hmm. te ndimbali yemutoon ci njabootuk Serigne Touba gi mm-hmm. Baye Thierno Diaw euh, sëñ Abdou Lahad mas na ko yabal ne ko xoolal ma waaw ne ko xoolal ma képp koo xam ne bu fi sëñ Touba nekkoon moo la war a dundal mm. dépense dépense am moo la koy sa dépense moo la koy jox defal ma ko ab liste nga indil bàyyi ci war na ñoo dem xool njabootu sëriñ Touba yëpp seex sëpp njaboot gi moom sëñ bi xamal na ko boppam waaye mhm. seexi sëriñ Touba mhm. yëpp njaboot gépp mu def ko liste indi sëñ Abdou Lahad lim ko xool lim lim ba egg mhm. mu ne ko gisuma ci kenn koo xam ne mën naa koo dindi daat koy jox ki yor magasin bi ne ko bis bu set na seenub dund di dem lépp lu ñu war a dund nañ leen ko jox kon kooku dafay fexe ba yow li nga tële mu dimbali la ci ba noppi doog laa yilif mooy lam doon wax ci discours am ba mu njëkk a def ba mu nekkee ba muy nekkee xalifa 1968 discours ba mu njëkk a def dafa wax ne dëkk bi am naa fi juróom fukki at sama daraja nag mi ngi yem ci sëñtuwaa ma yónni maanaam munta a am daraja ju féete kaw nekk xalifa Seexul Xadiim mu ne ñett a nekk ci dëkk bi nag mhm. doom mbaab sët mbaa taalibe ñett ñii nag mayuma kenn mu ñëw ci man di ma wax sikkus moroom ja nga gis kon ni muy gérer mooy fexe ba du may kenn bunt booy ñëw di jëw sa moroom baa ngay yàq sa derub morom baa ngay dox sa diggante digganteem ak kenn loola moom Sëñ Abdu Lahad daf fexewoon ba tëj buntu booba nga xam ne lu waaye fu ko nit doon lu baax looy gérer ci moom kon Sëñ Jili waxtu yi mag na waaye discours bi nga xam ne moom lay mujjee ci sama wax mooy discours ba ca Koriga mhm, mooy waaw ca Koriga waaw tàggatoo ba dafa dafa daf cee def ndénkaan bu am solo boo xam ne mhm. mënees na ko dénkaan kori la kori 89 ndax dañ ca teg tuuti rek mu daa di. mu daal di wax ni. àdduna mhm. euh, <coughs> bi ko yàlla sàkkee. Mhm. defu fi dara loo fi gis doomu aadamaa ko fi def. Mhm. lu weesu asamaan si ak suuf si doomu aadamaa ko fi def. daan kaaba gii fi nekkoon it. Seydunaa Nuux ca nattu ba ba mu agsee ca ñoñam ña lañ ko yéegee woon Seydunaa Ibrahim bi mu ñëwee moo ko tabaxaat. kon lu ngeen fi gis doomu aadamaa ko fi def kon day wane ne yàlla indi fi ngir noppal ñu. indi wuñu fi ngir bànneexal yi daal di wax ne nanu xam ne nag kon. àdduna bi lu gàtt la ndax mm-hmm. lépp lu am fu mu tàmbalee am fu mu yam loola gàtt na ba noppi mm-hmm. te àdduna am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem mm-hmm. waaye li muy gàtt-gàtt yi dundu doomu aadama ko gën a gàtt ndax koo fi mës a dégg bi muy ñëw fi la fekk àdduna bi muy dem fi la bàyyi àdduna àdduna di continuer di am mm-hmm. kon dunug doomu aadama gën a gàtt àdduna mm-hmm. waaye dunug gi ni muy gàtt gàtt a a mm-hmm. te bu fi gënee yàgg dootu mënati dara day tële ba lu mu def dañ ko koy defal kon dundu aadama lu gàtt la waaye ak manama ko gën a gàtt manam googu nag li muy gàtt gàtt gàtt lam cay jëf la ca yàllay nangu moo koy yoral dundug àllaaxiram te àllaaxira am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu kon li dee fi caaxaanee xëju dee fii moyen nag taxul muy wax kon loolu mooy ndénkaane yi suñu Abdou Lahad eh, bi moo gàtt moo tax loolu maa sax organisé loolu moom doy na yëbal doy na yëbal wax ak yooyu waaye ab yóbbal rek la ngi ñi ngi sant ñëpp ñi ñu doon topp message yi ñi ngi ci jot lu bare a euh, tudd oh, waaye njaboot Cheikh Abdou Lahad yaa ngi ko doon tudd léegi soxna May euh, ñi ngi koy ziar soxna soxna Kinne moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Khadim Rasoul ñi ngi koy ziar euh, mboolem njaboot Cheikh Abdou Lahad soxna yëpp daal ñoom soxna Jaara loxom soxna jaaram ma ca kër Euh, sëñ laat jaxate mhm. wala soxna jaarama ca kër suñ am satu moom sëriñ bu ñu ngi koy mhm. ziar ndeysaan ku am yitte te baax macha allah la soxna jaarama ca kër sëñ Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma ñoom ñëpp daal ñi ngi leen di ziar bu baax te soxna jaarama ca kër sëñ Fallou mu sëñ Souhaïbou mi ngi noonu te te ndokkeel soxna jaarama ca kër sëñ Fallou mu sëriñ Souhaïbou ñi ngi leen di ndokkeel bu baax di leen kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant suñu mbokki taalibe yëpp yi ñu doon topp euh, li may tëje rek mhm. mooy di fàttaliwaat mbokk yëpp ñu gën a farlu comme ni ko suñ Cheikh Omar ba waxe mhm. ci taxawu sëriñ tubaa dafa am lool sëñ bi moo ko njëkk defal boppam buñ naan la sax sëñ sëñ Touba du ko ñuy tontu ak yooyu sëñ bi moo njëkk a tontul boppam mhm. sëñ bi wax na ko léegi darajati taalo walay sa tan safi loolu tontu la wallaay wallaay chaqa <clears throat> uman lam yahwani xaddu kutiba fii lewxika alladi yufidul yufiidul kutuba loolu tontu la wallaay kon nag sëñ bi moo njëkk a xam ne ala wajali wala yulaaxuna ma wala baaba bi moo njëkk xam ne am na ñoo xam ne kon mhm. bëgguñu ko ba tax muy wax moom sëñ bi nag mhm. lépp lu wax moom doot kenn dootul si sàkk ci ne ndax am na am amut kon am na mhm. léegi nag képp koo xam ne li sëñ Abdou Lahad doon wax ni yàlla neex na la ak koo mën a doon dañ lay def ne suñu bopp waaye koo xam ne ni yàlla def sëñ Tuubaa neexu ak koo mën a doon yëgul sax ne yaa ngi dund te itam nag bu ñëw day dellu mhm. ndax suñ mag bi moom xawmalum ñàkk waaye njàngale mu wér mhm. mu sax dàkk moo xam ni eh, muñ ko mën a layale la am na fi ba mu doy sëkk mhm. sëñ Tuubaa itam mënees na koo xool bët bu ne ba mu des bëtub ku collaborer ak tubaab yi mhm. collabo moom mënoo collaborer ak tubaab yi yow ba nga duggee ci seen loxo 1895 ba 1927 bi ngay ñibbi si sa bopp sa dëkku ba nekk njaareem moins de 50 kilomètres mënoo dox dem fa keroog ba muy dem njaa ñi mu àndaloon naan xool yoonu Tuubaa bi mu yàgg mu leen xanaa su ma ne woon coow nii rek de danaa yegg Tuubaa nga xam ne munta sax am liberté wu mën a demal boppam Tuubaa archive yi ne fi lépp ne fi nga bëgg koo xool bëtub lëkkaloo bëgg ñëpp yem ak li nga am bu taxee nga bëgg a wàcce Serigne Touba loola moom ñun duñ ko fekk kon loolu na leer ñëpp léegi nag lu mu nu jural rek baax na ak ñun ñu ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Abdoulaye kon ñu ngi sant bu baax jërëjëf yal na ko yàlla fayal amiin barke Seex ñu ngi leen di sant bu baax di sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon topp ngi sant sëñ Cheikh Awa Balla mu Cheikh Momad Fadal moom it soxna Kuri Fall mi ngi ànd ak ñun jataa bi madame Mbacke soxna Fadima mu sëñ Amsatu moom sëñ Touba Cheikh Abdoulahat moom it ñu ngi koy ziare bu baax a baax sëñ Talla Gaye Baye sëñ Moustapha sëñ mi ngi ànd ak ñun sëñ Ousmane soppe amin ñoom it nekk ci waawan waaye am taxawaay bu rafet sëñ Abdoulaat Jaxate bu Sonatel moom it bokk ci turandoo sëñ Abdoulaat yi ñoom ñëpp ñoom uh, waa daaru Taneeful sëñ uh, Abdul Xaadir sëñ Jiili Ñang xam ngeen ne foofu mooy kër waajur wu jigéen so sëñ Modou Aminta Fall uh, conférence bi nga xam ni at mu nekk mu def ko incha allah le 5 la moom it ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax sëñ Cheikh Thioro mi sëñ Omar Bamba doon tudd sànq moom it mi ngi ànd ak ñun jataa bi ñu ngi koy ziare bu baax a baax di santaat bu baax xam naa ni liñ fi waroon dugal ci ay nuyoog ziare yooyu yëpp baylaat sunu genn wàll sëñ soxna Mominatu Kebe ku nekk xamoon diggante Alaaji Babacar Kebe jóg ak euh, sëñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad moom it bés bi bésam la. maa ngi koy maa ngi koy ziyaara bu baax. soxna soxna walaay walaay ñun ñëpp koy ziyaar sëñ Omar moo daan jàngal sama gars yi ñoom Bamba ak Abdoulaye ma ko sama wayjur sama sëñ boobu balaa mu naan tudd ko ak Babacar. <laughs> ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaar di ziyaar bu baax sëñ Abdoulaye Tage. ak mbooleem njaboot gi yëpp. Mm-hmm. taalibi sëñ Abdoulaye yëpp bu ñu leen nekkoon fii di leen tudd duñ fi jóge tulandoo sëñ Abdoulaye yëpp noonu rawaate na sëñ Abdoul Ahad mu Cheikh Abdoul Khadir ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di santaat bu baax di santaat alaaji alaaji Vieux Diouf bu baax ak Mouhamadou Mansour ci wàllu jàppale gi di santaat bu baax itam sunu ñaari gan yi nga xam ne ñëw nañ fi tey sañablaat moom yóbbu nañu fu sore sore kon ñu ngi santaat ñëpp di jéggalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ bi ñaanal wa fataahu wahab ya razaq ya malik liftah wahab bi wa sofiya bi kun lana waltuf bina waqar bina wa kun lana wahab lana husnal xitaami rabbana barkeb seexul